moom la mii nañu ñu lay fayaale avant tout d'abord dañ leen di encouragé leen félicité aussi ah. ndax deuxième place bu baax la tey maanaam lan moo nekkoon fayu waaye rax tey dañ jël dee waaw mais tey daa nekk suñu bés man loolu laa gisee quoi parce que ñu waroon def yëpp def nañ ko gars yi encadré na nañu normal li desoon si ñun la mais tey daa nekkoon suñu bés man loolu laa jàpp quoi parce que gars yi li ñu waroon def yëpp def nañ ko yéen a ñu ngi doon ñu mën mais tey daa tey daa fekkul na ñoo war a gagné quoi ñu ngi félicité waa Mbaaw xam nga di leen ñaanal affaire bi dig leen quoi. mais man lan Mbaaw dañoo def fausse piste. te ku que ñun buur dañu bëggoon jàpp ñu moytu leen si la mbaare jaaree sunu kanam ñun pesant nañ leen sa ba dem bi ñu waree booy ñu rombaan mbuur mais mbaa pour ñu rattrapé ko mooy jafe parce que distance bi mu amoon ñun dafa xaw a sori quoi voilà problème bi félicitations tous nos encouragements franchement rawante bi neexoon na et vous avez été vraiment brave et courage en yéen loolu lay yaraax kese pour rawante bi yaraax rawante woon pour Kalende yaraax lan moom xaar te mu ngi na ko la kaat la ñaaxaaraat la kaat la fay kalam waaw waaw waaw ndeysaan félicitations félicitations waaye ra waaye ra nañ bàyyi wax ñu xamal la ngay xam ñun mbaa mbaaw yaa fi man tooguñu woon nag yaa fi man lañu dañuy xaar moo tax ñu ñoo wal leen lépp bal nañu fekkaat muur bu ñu fekkaatee muur nañ leen wal lu ñaaw war nag nañu xaar waaw waaw ndeysaan suñu émotion da ngay dégg gars yi di wax ci suñu émotion bi ndeysaan waa Mbao aywaay waa Mbao capitaine waaw kuy capitaine Mbao ah Balla Balla Balla Balla mooy suñu capitaine waaw c'est que métti mbagay la gars yi li ñu liggéey xajul ci gaal yi ne entraînement wóor na yàlla xajul si daal dañ loo wase naa buur bi dara jige dañ ko bëggoon ñu yokkal ñu ko ndaxte boo ko yokkoon si la distance bi la yàlla xam na loolu moo tax fi ñu yoroon dee mën nañu la wàññi xaar ñu mais dañ la dañoo gën a toll waaw jërëjëf moom Ndao ndeysaan c'est le premier wa Maw wa Maw day seen wa Maw capitaine waaw ah ginnaaw bi ñu sant yàlla ministre yi ànd ak suñu ñaari waa ji sant waa Mbaw ñëpp wa dëgg yàlla rawante bi dañ ci entraînement entraînement yu métti ay coono yu miti waa Mbaw gëpp génn képp suñu ginnaaw doole ñu encouragé ñu ay ay ndaw lañ ay mag ñoom ñii yàqantuñu lii maanaam Mbaw da see bokk Mbaw rawante joo bu ko xamul moo ko siy génn mais dëkk yëpp xam nañ seen mooy Mbaw te incha allah rabbi xam nañ ne Mbaw ñu war na si rawante deux mois lañu entraînement ferme boo ñëw nag doon na woon ba tey la 25 ñu am dañ am Yaraax du ñu moom dañ koy wax wax ay wax yu ñagas ñu ne ko am tëb ndaal dañoo xamul ki ñu bàyyi. ak ñoom ñooy baaloo baaloo boo xamul dañoo xamul si seen kër yi. ñu ànd ak bàyyi mbaaw yi bàyyi mbaaw yi ñu indi ñu ngi sëdd di leen gërëm bu baax. di gërëm bu baax di sant Fila mi nga xamante ne moo may joo bi waa Ngor Fila moo leen Ngor moo may joo bi kër Abdou Karim Sall Mbaaw bu baax meeru Mbaaw bu seetlee di ko gërëm bu baax a baax a baax waa Mbaaw ñëpp jàppal ñu wax dëgg yàlla ñu kontaan na di leen jaajëfal Vous êtes en direct sur ma TV. Vous êtes le premier. Vous êtes le premier. ak samedi ndeysaan war naa ay chef ñoo nag ñu am amoon solo vraiment tey nag tey aada ak cosaan ndeysaan tey fii neex na tey trophée am na lu ñu war a joxe kon boog yéen a nga gisandoo dañuy dugg ànd jël oto bi tey ndeysaan dem ci jaraaf yi wala leen Alaaji Fay Njaay Hey! bon en fait euh, entraîné nañ minimum un mois wala un mois et demi. moo tax xëy na. waaw ah, mais vraiment ça se voit quoi parce que sport comme on dirait rek euh, amul découragé parce que boo jëlee exemple si euh, si équipe nationale du Sénégal def na lu ne pour atteindre ay objectifs mais malheureusement après juste bi mu demee ba retrouver ay formam si la si la koy yàlla suñu borom jox ndam. te juste nag si loolu lañ inspiré parce que euh, sport dafa am ay contexte euh, boo si nekkee da ngay àndax ngëm-ngëm comprendre mais euh, vraiment ak rawante yi ñu passé dem nañ buur l'autre fois yàlla mi dërëte wu joowuñu mais découragé wu ñu benn yoon découragé wu ñu benn yoon après juste buñ jàppaatee rawante bi ñu ne c'est le moment ou jamais oui c'est le moment ou jamais chaque instant ñu doon nekk suñuy entraînement ba tey yàlla honoré ñu paie bu neex bi. mooy sa première victoire. waaw bii mooy suñu affaire bi yàlla la yàlla yàlla du xaalis du sëriñ du xaalis nag fi leen koy yebale nag leen wax du daje beneen yoon ak beneen rawante leen wax nag ndeysaan doogoolu leen tey mais nag la victoire était pour Grand Mbao félicitations à Grand Mbao et les encouragements à Yara